feebar dina yóbbu juróomi mbir mooy allergie sinusite bopp buy métti bët yu neexul loolu daf koy faj biir buy métti biir buy def ngelaw biir buy yuuxu daf koy faj hémorroïde su duggee ak su génnee daf koy faj deret bu yéeg ci xorom muy tension daf koy faj deret bu yéeg ci suukar muy jabet daf koy faj coono bu chronique ak sébiru daf koy faj waaye li gën a yéeme ci àndala mu am tur ba wër réew mi bitim réew mooy gaaw daanu di yéex taxawal taxawal te du dëgër taxawal mu dëgër te ngay gaaw a bàyyi ko moo ci gën. Ndiaye maa ngi leen di fay. Euh, noo def ak euh, ngi sant. Euh, yàlla def na léegi jàmm dellu si na. Mhm. di nit ñi doon xalaat yëpp ak malentendu bi nga xamante am na parfois nit waaye nit ñi dañu muy waxee li ñu jël wax yóbbu ko fu leen neex et def ci titre bu leen neex tey bu ñu gisee tey retrouvailles yi. ci bi ñëw nga gi waxtaan nañu saa neex tudd na ba ngeen trouvé un terrain d'entente. Mhm. toll yéen ñaar euh, fi ñu toll moo lal jàmm ñu jël lépp loo xam ni wax la bu dox suñu diggante gas ba mu xóot dugal ko fa man ci sama jëm bopp may ñaan nit ñi ne leen ngeen dimbali ma li lay war a suluhi fàttali lépp loo xam ne nii doxoon na suñu diggante jàmm ñëw na. Mhm. ngir yàlla. suuxat leen jàmm jooju dox léegi suñu diggante. Mm-hmm. du sama diggante ak sànneex. Mm-hmm. mais soleil levant la. Mm-hmm. képp koo xam nii nag. yoreel nga wax bul sukkandiku ci man. ngir wax say wax. ŋàdduwuma kenn. du ma manitiwu kenn. jiituwuma lenn bañ dugg ci problème mu jaam. te ngir yàlla yonent ba cëppaleen sama tur bi. ci waaw. moo tax Père Ndiaye waxoon na lii ak yooyu. ay mhm. leen Père Ndiaye mu noppaleku. Mhm. màgget rek doy ñu sëkk ak barke. Mhm. wut. dañu xam ne ëllëg ñun dem suuf. boo leen xalaatee ni njëgënaay sax du fa am. ndax suuf ci boppam dañ lay njëgënaay. bu commencé moom ci boppam di lekk li nga xam ne moom nga yore. kon ku xalaat bàmmeel. war a nit ci suuf. ni ko suñu borom di cëppee. te moom sax daf koy suul kon nag mm-hmm. suul leen wax ji ngir yàlla yonent ba mm-hmm. moom rek laay ñaan mm-hmm. tey kon ñu ñëw ci maintenant sa suite carrière parce que actuellement yaa ngi wax ci ci biir wax ji ne jàmm ngay woote jàmm nga soxla dañ la bàyyi nga nekk sa jàmm tey est-ce que diggante bi am nga yeneen maison de production yoo xamante ne ñu ngi lay contacter. am pagaille parce que man desuma fii rek maa ngi liggéey ak ñi nekk à l'extérieur mhm. loolu sax day moom mu yóbbu woon à la comédie française mhm. donc euh, ni ko Sanekh waxee woon mhm. nee na dafa foogoon ni Père Lamine Ndiaye nekkul woon fii alors loolu mu waxoon parce que man du ma fi toog ba fi yàgg damay nag ubbi ci biti ubbi boobu bëgg naa sax mu nekk yoon woo xam ne yeneen sénégalais dañ fay dem parce que nag je ne pas le seul artiste bu am capacité boo xam ne nii. Mhm. dama fi nekk. Mhm. Euh, man li ma bëgg a nuru sax. Mhm. bien que suma rakk la suma xarit la ndax moom mu njëkk jël muy liggéey ci rajo mu muy euh, Youssou Ndour. donc euh, ma amel ko njukkeel boo xam ne nii ba mu koy def. xooliwul kenn. sa relation ak Youssou Ndour. bu baax la bu yiw dinaa révéler loo xam ne nii tey kenn mësu ko woon xam. ndax. léeg-léeg ma toog ba ci yàgg sa mu yónni nit mhm. ñëw jëf leen teg man ci njëkk ak teraanga mhm. te kenn yëgul ti ñu mhm. yóbbante naa sax benn magam ci moom wax ko di ko gërëm di ko sant tey mi ngi nii ñu koy inauguré loo xam ne nii usine bi ci biir Sénégal la am amul ci Afrique amul sax ci àddina bi boo xam ne nii war nañ ko tëkkale wala di ko dendale lu mu xalaat la woon yàgg di ko toppatoo. Mhm. di ci woo ñëpp nag parce que nag. Mhm. ubbiyoo ko pour sénégalais yi xool ko. waaye na ko sénégalais yi jàppale comme moom ni mu yàgg di jàppale nit ñi. ñu def ko seen yëf. waaw ñu def ko seen yëf. Mhm. di fa dem. Euh, mu nekk usine boo xam ne nii usine Afrique la. mu nekk usine boo xam ne d'abord sénégalais yi ñoo ko moom. waaye ci biir sénégalais yi bu féeyee rek. ba mare war a laaw yi faneen. da koy bokk ak africain yi. moom sax. xelam loolu la. Mhm. day ubbi loo xam ne nii Sénégal la. Mhm. waaye natt ni ëllëg dana dem ba Europe. Mhm. jaaral ci Afrique. ndax du ko bàyyi. ndax euh, après tout sénégalais la d' abord. nekk africain. war a xool bitim réew. comme sax d' ailleurs ni mu yóbbee musique bi ci bitim réew. mais ndànk-ndànk mooy jàpp golo ci ñaay. te Youssou ko xam loolu la. ku ko ràññee. fulla geeg sago geeg. ak pastef bi mu àndal ak dogute bi mhm. man loolu laay woo sénégalais yi mhm. dale ko nag ci biir assemblée nationale mhm. ña fa toog député yàlla daf leen woon loo xam ne lu rëy la parce que la mu leen woon mooy kenn ëppalewul sa morom ci lenn mu yemale leen yemale boobu la bëgg comme nañ daan def démb ak bërki démb tuddee ko soulard à nga xam ni lépp lañ doon waxtaanee mbiru gox mi waaw kon penc bi la nag penc bi lépp mën nañ ko waxtaane kenn bara xoole sa morom ne dangaa néew moo gën xulo yeeg xaste yi ak dagg sante yeeg xaxarante yoo xam ne yu metti la dañu mhm. xas mhm. xas bi xam nga lan la woon mhm. dañ daan jël xeej ci cosaan ñëw fekk benn tronc dar bu ñu teg nga waat ni yaa ngi dem xare ji waaye xare boobu di nga fa def nangam ak nangam ak nangam jël xeej bi xaj ci ba mu yëkkati ko ca kaw. Mhm. nga samp ko ci kii mu dëggal sa mhm. loolu ngeen war a def. Mhm. doxale ko noonu pour Sénégal ubbeeku nag. Sénégal développé. mooy slogan bi ma kii rek daal ne un engagement patriotique pour un développement local. donc yaa ngi engagé wu jël xeej bi. pour un développement local. doo ci xaar kenn. yow la ñuy ngir nga jóg. ngir sa réew développé wu. Mhm. yow boo jógul ngir sa réew développé kan mhm. moo fi ñëw di ko def. Mhm. du kenn. ñeneen ñuy tàll nañ leneen lu dul sax di toppatoo mbiru Sénégal kon Sénégalais seen bopp. ñoo war a xam te yeewu ne luñ fi yàq ëllëg ñoom di rek. ci seen bopp rek lay tey waaw kay. d'accord euh, gannaaw sa diggante ak Youssou Ndour président Macky Sall aussi euh, am ngeen benn diggante bu rafet macha allah. waaw amoon nañ diggante bu rafet. waxtaan wax dëgg ci la. du ma ko tëggali tama te yorewu ko mhm. ndax dama jéem ba tey mhm. moom ci boppam mu am reconnaissance mhm. gestu gannaawam daal ni diw ñëw leen parce que man maa sakk woon daje beeg moom ngir loo xam ne nii buñ ko fi tegee billaahi wallahi talaahi bu dee liggéey rek la senegal yi bëgg fépp foo xam ne ci réew mi am nga ndox wallahi ay goneem daan fi liggéey te loolu bu soqe ko lu ñuy mën a jaay la en Afrique surtout réew yi nga xam ne ñoo doon dend ak Sénégal mhm. nga xam ne nii wax dëgg fa yàlla loolu bu génnee tey mhm. billahi wallahi taala le Sénégal va raconte euh, récolter mhm. des millions et des millions ndax gis ngeen boulanger yi toog di fi grève loolu nag du farin bi dafa am leneen lu ci làmboog euh, euh, grève boobu muy la levure levure boobu nag am nañu ko fi yore gaa di ci liggéey moo tax doo leen dégg ci leen mhm. bu nit ñi di yuuxu farine ñoom ñu ngi téye seen levure di ko jaay ndànk mhm. loolu mënul nekk senegal sénégalais yëpp war ko bokk mhm. te du ñu génn loolu ba nit ñi am ba am ci waaw du ñuy noppi ci loolu loolu buñ ko béyee fii Sénégal wax dëgg fa yàlla taar lay indi koom lay indi dana ubbi lu rëy lu rëy ci Sénégal. Mhm. te li may wax ni man dama ci am firnde bu woo ndax jot naa ci liggéey bay jaay levure yi. Mhm. bi mu fi duggee fii Sénégal. Mhm. ñun dañ daan jël di ko may pour nit ñi essayer ko. mais ñooñu ma leen di wax te ba ñu tudd seen tur. ñoo ci taxaw. fi mu nekk il récolte des milliards. des milliards. sama sœur bi nag sama jigéen moo xalaat xalaat bi. Euh, tënk ko Euh, techniquement. Mhm. bañ ko révéler. Mhm. pour ñu bañ a jël technique am. Mhm. loolu sax dëgg la parce que ba yoree projet xam na mu ngi demee ak na muy doxee. ak mun la ko lal. doo ko euh, kii rek di ko wane fu ne. donc moom looloo ko tax mu téye affaire bi. d'accord ndax Ablaye Wade mu ko gisoon. moom boole na kook nit. waaye bi Ablaye di jeexalee nguuram. dégg nga ki fi ñëw toog du kenn ku dul Macky Sall. man kooku laa doon jéem ñu waxtaan ci. loolu donc moo taxoon ma sàkkoon waxtaan mais dama dajeek moom ay yoon yoonu yoon muy woote ci gannaawam mhm. ña mu woo mhm. mu ne leen jël leen numéro am après ngeen jox ma ko wala ngeen woo ko mhm. mais kenn defu ci leen d'accord kon moom sa diggante moom sa va mais ñi nga xam ñoo ko wër ñooy problème bi waaw waaw lool loolu de sañ na ko parce que moom sàkku na moom président la sàkku na jël leen numéro waaw loolu kay sàkku na ko comme wax na ko kay gars yi ñoo ci des ñoom pour def loolu. d' accord sa diggante ak ministre de la culture bu bees bi Alioune Sow. war fakal macha allah. Mhm. kooku muy gor. Mhm. billahi wallahi taalaahi du ma ko tëggal ay tama moom it. Mhm. mais li mu def rek laay wax. bañ ko waree sargal Kaffrine. Euh, mu tànn ma. man ak Kumba Gawlo. ñu ànd foofu. ca fa nga xamee ni foofu la jànge mhm. ñu war ko fa sargal mhm. ñun ñoo àndoon ak moom mhm. ba ñu ànd ak moom daf ñu fa tereel tereel boo xam ne nii man yaakaaroon naa ci àddina ne nit ki doo ko woo parce que soxla nga ko ba pare di ko tereel tereel bu ñu toll ah rëy na lool loolu moom du ma ko fàtte ndax mi ngi sama xel ba ba ba tey barki démb boo njaay laa tasanteeg moom euh, na xolam sedd te xam ni li may wax nii mhm. ah nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a mhm. parce que nag euh, fi ni ñi yaakaar mhm. nekku fa Aliou Sow nañ bàyyi tur boobu xel bu baax a baax a baax a baax ah dana am loo xam ne nii damay bañ a jiitu sama làmmiñ parce que damay faral di wax ni méfiez-vous de l'œil et de la langue car plus l'œil admire plus la langue flatte et vente, mm -hmm. et plus le bonheur se fait vulnérable à le venin mm -hmm. et s'affaiblit mhm. moytu leen gët ak làmmiñ mhm. bës jarutewul mhm. am na ñu bari ñoo xam ne génn nañ àdduna te làmmiñ moo leen yóbbu donc làmmiñ balaa la ñu koy wax buñ ko fàtte suñ buggee li ñuy dox mu mucc ayib nañ moytu làmmiñ d'accord ñu jeexal ak conseil booy jox tey képp ku nekk ci monde culture rawatina théâtre bi xam nga dama dégguñ ci La Fontaine mu ne mhm. la patience et la longueur de temps font plus que force ni que rage mhm. culture doo ko yore boole ci yàkkamti mhm. culture dafa laaj nga xool seet settanti parce que lu yiw lay indi ci nit ki lu baax lay indi jëm ci xel jëm ci xalaat jëm ci jëf jëm ci nekkin nit mhm. togg nit ba mu capable yore réewam ci xel ak xalaat boo xam ne dañ ne xel ak xalaat teen lañu xool ci lay root mhm. tënk leen ci loolu loolu yi xol di root mhm. ah <laughs> xol mënu root fenn lu ci culture parce que yëg-yëg dafa am solo ci nit moo tax film yi aussi tamit ngeen war di ko seetaan ñun moom lañu tànn pour mën a waxanteeg suñu waa réew ndax dañ ci boole ñaar yoo xam ne ni <clears throat> boo bëgg a waxaat technique mhm. boo leen boolewul ci sa wax defe naa ne du ñu dégg dara mhm. mu di le sentiment et l'émotion mhm. muy yëg-yëg ñaar yi ngay boole mu tudd yëg-yëg loolu tubaab daf ko tuddee la génétique buñ ko jaawaleek leen nañ xooli dictionnaire yi li may wax nii firnde gaa ngi foofu da leen di tekkil ce que c'est la génétique mu di le sentiment et l'émotion film yi foofu lañuy jaar pour nas dara ci xelu nit ki mhm. nit ki boo buggee dugal dara wala nga soppi jikko ci moom bu mhm. àndul ak yëg-yëgam mhm. mais dara du dugg day fàtt ta rek parce que xamu ko mu commencé di ko refuser lëf nag boo ko buggee dugal ci nit da ngay jaar ci xol ba te xol ba fa muy nangu mooy xel ak xalaat buñ ko fàtte d'accord rikk waaye lii may wax njëriñ la pour ñëpp bàyyiwuma kenn man je je me vois pas man. Mhm. sax jëriñu ci loolu. Mhm. mais dama bëgg xale yi nga xam ñooy ñëw. Mhm. ak waa dëkk bi ñu jéem a réfléchir ci li nga xam moom la ñu wax. ëllëg du añ reer waaye du mët sedd la. ngir yàlla ak yonent la yokk leen seen xel yokk leen seen xalaat. sa digganteeg Malick Gakou ñu jeexale ko. mali Gakou. ah ku gàkk day. moo la gàkkal. gàkkal ci xel ak xalaat. Malick fàttewu ko mhm. c'est un homme qui incarne la culture dans tout son sens propre mhm. un homme sérieux mhm. généreux en la matière mais aussi exigeant bu ko caaxaan lépp lu mu la wax soo ba ngoon lu muy appliquer la lu muy jëf la nee naa ni du ma ko tëgg tama lii nekk ci moom rek laay wax. Mhm. yàlla ñu tiim xam na loolu. Mhm. te ku ma xam it xam ni j'ai pas l'habitude de trop parler. en mhm. télévision. mais j'ai juste l'habitude peut-être de dire l'essentiel. le l'essentiel boobu dama ne nañ ko bàyyi xel. Malick Gakou ci réew mi la juddoo. doon koo xam ne nii lépp lu réew mi di wuyoo. moom mu nga ca. ci lu baax nag. ci lu baax. macha allah. Mhm. ñu ngi lay gërëm ñu bàyyi la nga nga tàggatoo. jërëjëf Yves. Mhm. Euh, xanaa di wax nit ñi rek. ni quelquefois la vie prend de drôles de tournants. Mhm. car elle vogue souvent au gré des spirales. négatives positives. et donnant quelquefois au principal intéressé la principale cause. ou même quelquefois dirige les actions. ou la vie même d'un mhm. Parce que tout simplement, mmh. c'est quelque chose qui euh, détermine l'engagement, mmh. un engagement patriotique d'un Sénégalais, d'un vrai mhm. vrai Sénégalais se doit de s'engager patriotiquement parlant mhm. et qu'il sache que rien ne se fera ou si quelqu'un ne viendrait jamais mhm. lui montrer la voie à pour le développement de son pays. Mhm. C'est à lui de s'engager, mhm. de s'auto-engager avec les qualités que Dieu lui a données, mais surtout la vérité.